mbokku internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme e, 5 TV ma ñëwaat ak yéen lekk defal leen décortique série bi di maîtresse d'un homme marié tey mu yemoo ak épisode 7 bi dañu koy door ak séquence bu njëkk bi e, ñu gis si nag biram e, mu am beneen melokaan te mooy rek responsable waaye itam koo xam ni dafa taxaw temm ngir jàppale mbokkam surtout nag frère am bi nga xam ni moo di Cheikh Diagne te mu nekk ci ay tolof tolof mu mel ni nag tey biram wane na ni du caaxaan rek wala yu ñàkk fayda la mën waaye nag bu fekkee rek taxawaayu kilifa ak ku responsable dafa jot da koy taxawee ba mu mat sëkk ndax tey jii problème yi nga xam ni moom la Cheikh am ba ñu tëj ko prison moom moo taxaw temm rek ba daal di ko cay génnee donte nag moom boo ko gisee ci ay caaxaan wala nag wax yu ñàkk fay fayda ci lay nekk waaye nag gis nañu ni tey moom wane na ni rek bu responsabilité taxawee danga ci war a taxaw ba mu sëkk te bàyyi lépp li nga xam ni mooy euh, caaxaan loolu nag jàngat la pour ñi nga xam ni jàpp nañ ni euh, am na melokaan booy am ci àdduna rek euh, nit ñi dañu la war a tegee da côté maanaam kenn dootu la boole ci dara ndax nit mën na nekk koo xam ni ku oyof la koo xam ni itam bëri na caaxaan torop waaye nag bu dëgg jotee wala nag bu taxawaayu fulla ak fayda jotee da ciy taxaw ba mu mot sëkk ba tax nit kenn warul di ko xeeb wala di ko beddi ci yenn yi ñu ñu jàll Cheikh Diagne moom nag euh, jamono ji taxaw na temm rek ne ay doomam dina leen récupérer ndax yaayam wax na biram wax waaye loolu yëpp nag taxul rek mu dégg leen ndax taxaw na temm rek ne day jël ay doomam euh, ndax ki nga xam ni moo di lan la taxawaalu rek la nekkee waaye talul toppatoo ay doomam mu mel nii Cheikh Diagne euh, dafa fase lan la ba pare daal di koy rëccu mu mel ni nag xolu fiir saa sune ne rek moom lay waxee ndax liggéey bi lan di liggéey ak moom boppam bi mu moom boppam mel na ni nag loolu loolu moom moo koy déranger waaye nag du xale yi kese moom moo tax mu mel nii ñu jàll ci Tahirou moom nag woona mami di waxtaan ak moom ngir rek mu bàyyi njabootam euh, si jàmm ndax gis nañu ni mami day fréquenté Jalika di fréquenté Dalanda en même temps euh, ki nga xam ni moo di Tahirou nag li mu ciy ragal rek mooy euh, ki nga xam ni moo di mami daal di wax dëgg bi ku nekk si ñoom loolu nag moom moo ko tiital ba tax mu woo ko ngir waxtaan ak moom donte nag bëgg koo wan ni tiital na ko waaye mami moom li nga xam ni moom moo xew moom jàpp ne loolu lu war a nekk la ndax rek li tax euh, Tahirou di fen ay ñaari jabaram loolu moom metti na ko donte nag munu ci dara ndax ki nga xam ni moo di Tahirou da ko menacé ñu jàll ci beneen séquence euh, ñu gis ni nag euh, madame Diallo Anita ak jëkkëram ñoom ñaar ñoo ngi dund amour boo xam ni bu neex la ndax ki nga xam ni moo di jëkkëram moo ngi koy toppatoo te yi nag lépp loo xam ni rek war na mu ngi koy def si diggante ak moom mu ñu gis nag muy jëkkër boo xam ni bu jafe la ndax gis nañ madame Diallo dem liggéey yi nàcc fekk mu toggal ko reer taajal ko boole ci nag ak euh, wax yu neex ak di ko euh, bégal euh, mu mel ni nag loolu lu am solo la ci couple te ñoom nag gis nañu ni ki nga xam ni moo di yaay madam Diallo mayu leen jàmm ndax li mu bëgg rek mooy sëy bi tas ndax amuñu doom mu mel ni nag parfois nit ñi dañuy jaawale que ni sëy doom bénéfice la ci rek waaye nekkut loo xam ne dañ koo signé si contrat ba du forcément ku sëy rek danga nga war a am doom ba tax nag parfois nit ñi euh, entre couple jëkkër ak jabar ñu sëy si jàmm konoon yaakaar naa benn sëy du am problème waaye nag à chaque fois dañuy gis rek yeneen nit jóge fële ñëw rek bëgg ci xëpp suuf ñu jàll ci Jalika moom nag dañoo gis ni dafa soppeeku bu baax a baax rawatina nag ci euh, ay doomam ndax Jalika bañ ko xamee ba tey ci toppatoo ay doomam sonn euh, ci ñoom loolu la xamoon ci moom ndax saison yi nga xam ne ñoom ñoo weesu danaan boole liggéeyam ak di toppatoo ay doomam te dara rek daawu ci manqué euh, te amoon na jëkkër joo xam ni daawu ko jàppale ci dara waaye tey jii nag tayru tax na rek ba ay doomam daanaka toppatootu leen talatul sax di leen defar wala di leen toppatoo loolu nag la ko yaayam doon fàttali ba tax nag mu daal di mer euh, ba ni rek day génn kër gi mu mel ni Jalika temps yi nag mbëggeel moom moo ko sonal euh, mbëggeel bi nga xam ni moom la am ci tayiru moo ko ëpp doole ba tax xamatul lu muy def wala lu muy wax te lépp rek moo ngi koy euh, tegoo ñu jàll ci beneen séquence euh, ñu gis ni Résina euh, jóg na nag ngir leeral doute bi nga xam ni moom moo nekkoon ci xelam ndax moom comportement bi nga xam ni moom la daraan am daa jàppoon ni rek dañu koo liggéey waaye effectivement bi mu demee ci imam loolu la ko wax waaye xamal na ko ni nekkul liggéey bu bon ndax dañu koo liggéey ngir mu des ci sëy bi te loolu nag nekkul loo xam ni lu bon la waaye nag ki nga xam ni moo di Résina moom mën nañu ni tubaab bu ñuul la moom gëmul yooyu ndax rek jàpp na ni comme dalaan daa bëggoon a divorcé kon nag euh, tey jii warul ñëwaat naan day nekk ak euh, Tahirou ndax moom jàpp na ni Tahirou du mas changé Dalanda nag moom euh, nanguwul gëm ni rek dañu ko sëriñtu te yi nag li mu bëgg mooy Résina daal di koy bàyyi si jàmm mu mel ni nag moom sëriñtu ba jàpp na ndax jamono ji waxul dara rek lu dul sëy toog sëy sëyam bëggul kenn nag koo xam ni yàqal na ko ko ba tax nag mu bëgg bàyyi ki nga xam ni moo di Résina nga xam ni moo ko mas di jàppale moo mas a nekk xaritam ci lépp ñu jàll ci Tahirou moom nag d'accordul si li Jalika indi ay doomam ci biir kër gi ndax moom rek dafa mel ni xajoowu leen waaye nag excuse bi nga xam ni moom la joxe mooy day bañ ki nga xam ni moo di Dalanda fekk leen fa wala ay doomam fekk leen fa mu mel ni nag Tahirou moom moo ngi regretté bu baax a baax lim takkee woon Jalika ba tax rek li ñu naan war ku ko def ren ba déwén mu jig la dañ la koy jiñ waaye du yow loolu moom moo ko dal ndax moom ak Dalanda seqoon nañ loo xam ni yaakaar naa waru ko ko woon jëndee ak jigéen mu mel ni nag loolu yëpp tey moom moo xëpp ci euh, kawam Jalika nag moom euh, génnaat na kër ga euh, ndax rek xam na ni ki nga xam ni moo di Tahirou bëggul yor ay doomam ba tax nit ñi nag war nañu xoolaat bu baax a baax fu ñu teg seen tànk rawatina nag ngay divorce ci sëy fekk nga yor ay doom ndax raar na nga gisaat góor boo xam ni dina la mun a yor yor say doom te à chaque fois gis nañu ni rek ay jafe-jafe rek lay jur ñu jeexal ki nga xam ni moo di Dalanda moom nag mel na ni daa yëg ki nga xam daa yëg ni euh, Tahirou takk na euh, Jalika ndax mer la duggee ci kër gi te bi mu duggee ci kër gi dafa ñëw attaqué euh, Tahirou directement di ko laaj ndax dangaa takk jal Jalika wala déet waaye nag Tahirou moom dafa jaaxle ba mu nu koo tontu kon mbokkente noonu dinañu leen topp ba xam fu wànneen di mu jëkki gëtam waaye laata boobu nag wéye leen di abonné ci 5TV te bu leen fàtte di bës ci cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et ان شاء الله